samay mag ndax nit boo ñemee dañ laa déey eh, sunu mag di sunu wéyjur di sunu lépp di suñu soppe di sunu sëriñ di xalifa Ababacar Sy Dieye moo tax ñun ñu ñeme ba tey ñu taxaw jàkkaarloog askan wi ngir yéene ji ñu am ñu mën koo jëfe nit naan nit boo ñemee dañ laa déey mooy samay mag mënuma leen a lim mais ñoo ngi taxaw samay wet ñooy sama xel ñooy sama xalaat ñooy samay action yi may jëfee di gërëm aussi samay sœur ñi nga xamante ni ñu ngi may taxawee fu nekk di ma jàppale di gërëm aussi rawatina samay xaritu démb ni tey nit euh, bu naan boo gestoo gis say xaritu démb ñoo xamante ne def ngeen plus de quarante ans tey ñun ñëpp ku si nekk am nga 40 ans yu tegu te ba ñu xàmmee si la ñu commencé ànd ba léegi donc ànd boobu yàgg na te ànd boobu ànd bu dëggu la te tey ñoom ñëpp kenn dëkku fi waane ñu ngi feddal le pas-pas boobu te ba léegi ñu ngi koy doxee di sant nag waa koñ bi tey dama kontaan tey sama yaram dafa daw ndax nit euh, boo sumbee benn mbir sa waa koñ ñëw fekk si la ah loolu de sant yàlla kese la ndax ji tey mënoon naa jóg taxaw woote du ma gis kenn walla parce que man maa am devoiru dem seeti nit ñi dem si ñoom ku si nekk ma waxtaan ak yow wante tey yéen ñëpp ba ngeen déggee yéen ñëpp génn ba xam ni kat lii pas-pas la ak yëg-yëg la boo xamante ni moo nekk si biir xol yi man nag. peut-être loolu defaluma leen ko mais yéen a baax ba ku leen xam xam ni koñ bu am fulla lañ comme koñ bu am fayda lan koñ bu am pas-pas lañ koñ bu am diine la ma fier ci trop ba ma nekkee ndaw ba léegi musuma nëbb sama identité donc danaa gis ay nit ñoo xam ne dañ doon nëbb seen identité si Bayal je n'ai jamais caché mon identité ici à Bayal fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee te fii laa nekk boobu ba léegi donc tey mënumaa dem bàyyi sama koñ mënumaa def loo xamante ni sama waa koñ duñ ma jiital te nag sama jiitu bii nag ma jiitu ma ànd teeg sama frère di sama xarit di sama goro di Thie Yacine Diagne maa ngi koy sant di ko gërëm si taxawaay bi ak si liggéey bi mu am. ak yéene bi mu am si koñ bi ak yéene bi mu am pour la développement de Thiès di sant nag lii tey di mouvement boo xamante ni dafa am fu mu jaar am ay nit ñu am pas-pas yoo xamante ni ñoom laa ko sékkal ba liy taxaw ñooñu aussi maa ngi leen di sant di leen gërëm du duma lim seen tur xam na seen bopp te man ak ñoom pacte bi ñu signé dafa fort c'est un pacte noble bu boo xamante ni. mooy ay nit ñu dëggu ay nit ñu xër ay nit ñu am pas-pas dara ñoru leen lu dul sama réussite te sama réussite man macha allah alhamdulilah ñu ngi sant borom subhanahu wa taala ñun dañoo démarré ci dara di góor góorlu di ñafe ba yàlla tey may ñu lu ñu ab may ñu loo xam ne du ngi ci suturlu ci sant borom bi subhanahu wa taala mais nag nit da ngay dem ba toll ci benn situation boo xamante ni li nekk sa gannaaw moo lay ëpp doole donc ñu toog di liggéey di jëf dans la discrétion kenn xamul lu ñuy def du ma ko waxee duma ko jëfee ndax def te yàlla tax moo tax tey borom bi subhaanahu wa taala dama ni sax man lii ndogalu yàlla la man yàlla la moo ma nattu la ma doon bañ yàlla boo ma ni da ngay feeñ par force parce que man mësumaa ñemee ni dinaa génn taxaw ci ay nit mais nit bu la yàlla génnee dangay génn parce que boo amee mission boo xamante ni da ko yor muy mission noble muy lan njariñu askan wi mooy sama mission njariñu nit ñi mooy sama mission donc li may dox ànd ak ay nit ñu digne ay nit ñu noble ànd ak samay waajur yu ñaanal ma ànd ak samay mag ak samay rak ju ñaanal ma rawatina nag ma ànd teg sama waa koñ mooy waa bayaal xuja bajaan maa ngi leen di san di leen gërëm te xam ni seen doom seen jarbaat seen mag seen raq moo taxaw ngir un développement local ñu dugg nag si benn mouvement boo xamante ni mouvement politique la comme li ko imam waxee ñu ngi koy ñaanal bu baax parce que sëg si moom laa waroon a déparé mais sama xel muy woon ci moom ndax dafay wax lu am solo donc euh, li naan dëkk imaam moo fi représenté borom bi subhaanahu wa taala moo fi représenté sunnay yonent bi te wax na lu am solo ci politique politique c'est l'art de faire la cité mooy yan moyen ngay utiliser pour développer sa gox donc man si loolu laay dox si loolu laa mës dox te ci loolu laay continuer di dox donc nag tey bu nu yàlla mayee opportunité ñu mën a taxaw ngir développer suñu dëkk dañuy taxaw jël suñu responsabilité ànd teg ay nit ñu baax indi seeg ay nit ñu diñ ne kat tey dañoo taxaw ngir àndandoo xool Cees li fi manqué xool jafe-jafe yi fi manqué ñu indi si suñu apport sunu apport nag mënuñu koo demal ñun kese loo gis dafa am yoon boo xamante ni fa lañ koy jaarale yàlla may ma ma nekk ak le docteur Cheikh Kanté di nit ku loyal di nit ku digne di nit ku bëgg liggéey muy directeur général port autonome de Dakar di koo xamante te ni man damay évoluer ci secteur boobu mais bu ma gis ne kat tey kii mu ngi liggéey liggéey bu am solo te liggéey bi yëpp jëmul dara sur le développement du Sénégal taxaw ci gannaaw président de la République di ko jàppale. ma nag nit boo amee loolu nga gis ne kii c'est une référence donc it man référence boobu war naa ko mën a jël xool ci moom ngir su suqali sama gox donc looloo looloo tax ñun ñu engagé wu ñëw taxaw derrière le docteur Cheikh Kanté. ak derrière le programme du président de la république donc tey nit ñi dañuy déglu parce que léegi kenn kenn nelawatul ñu ñëpp a yeewu chaque jour li nit ñaa ngi informé wu à temps réel gis na le président de de, la république Macky Sall ni muy doxalee ñu ñu nekk ay jeunes di liggéey am yoon woo xam fa la ñuy jaar ñu ñu gis ci suñu bopp c'est un président de l'émergence du woote émergence pour que nit ñi àndandoo liggéey li ko gën a ñor nag mooy l' emploi des jeunes l' emploi des jeunes boobu le président de la république Macky Sall daf ñu see fekk ndax tey ñoo ngi yor suñ entreprise prise boo xamante ni am nañ plus de soixante-dix emplois donc loolu sama frère te xii la jéey mën na ko confirmer parce que mooy directeur des ressources humaines donc tey loolu président de la république di ko woote ñu gis ni le plan de l' émergence est lancé te Thiès war na see war a mën a taxaw parce que tey waruñoo toog des gannaaw si le train de l'émergence dafa départ ba pare donc nag ñun waruñoo xaar parce que train ñu ñoo ko moom tey bu président de la République wootee le train de l'émergence donc train mënul jaar fenn te jaarul Thiès donc nag bu fi train bi gaaree waa Thiès ñoo si war a njëkk a dugg toog si kanam ànd na président de la République pour mën a liggéey pour mën a doxal dëkk bi donc ñun loolu moo ñu ñor dinañ. taxaw nag jël seeni xalaat jël seeni mbébét jël seeni soxla pour yéegal ko ba ci kaw a kaw a kaw ba nit ñi ba autorité étatique gi mën koo dégg ngir mën a suqali suñu réew suqali suñu gox suqali suñu Cees Cees lañu am kenn moomul Cees xuloowuñu nag xeexuñu xastewuñu li ñu ñor mooy liggéey képp ku ñëw aussi di liggéeyal président de la république dañu xam ni kooku sotti si ak def ci sal rek kenn xuloowul kenn xeexul bo bokkuñu fenn fi ñu bokk mooy réew mi la ñu bokk ñëpp ñoo ko bokk moom donc nag maa ngi siy woo ñëpp tey bayal gëm naa ni benn nitu bayal benn nit si bayal mën na indi mille personnes man loolu gëm naa ko ku fi nekk na génn si yeneen gox yi am ngeen fa ay xarit am ngeen fa ay mbokk ngeen lancé sama message pour que ñu mën a àndandoo liggéey pour que lépp lu ñuy séentu muy ay résultat moom la ñuy séntu et échéance électorale yaa ngi ñëw jeunes yi vraiment ñoom tey action yi yi ñuy def mooy action yu concret tey jeunes yi fii li ñu fi wax ay action yu concret la te ànd naa seeg ñoom parce que man jeune laa comme ñoom donc euh, wax ji nañ ko bàyyi te xam ni jëf mooy tax développement am donc jeunes yi entamé nañ liggéey bu am solo maa ngi ci seen gannaaw nañu sensibiliser nit ñi dem inscrire ci liste électorale yi dem changer quarante yi ñoom am nañ benn cellule de facilitation képp ku ci bëgg am sa carte boo jaaree si ñoom dinañ la yombalal ba tey ba tey ñu mën a ba ñu mën a am li li ñuy am mooy changer la vie politique de Thiès. cest à di wax nit ñi loo xamante ni moo mën a nekk di wax nit ñi dëgg ngir que ëllëg bu résultat yi amee benn nit rek bañ ko jariñoo parce que ñun tey suñu intérêt mooy intérêt de la intérêt ñëpp intérêt population Thiès donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax ji du gudd ni mënuma wax mais li may wax mooy lu concret mooy action dañu dem di jëf woo naa ñëpp nag yéenay samay nopp yeneen samay tànk yéenay sama lépp dénk naa leen sama bopp waa Bayal na ngeen ma ñaanal àndandoo man ngir ñu àndandoo mën a liggéey pour mën a am ndam jërëjëf maa leen sant leen gërëm.